mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV amati nañu mbégte ak contentement tey nag ñu ngi ci dëkk bi ñuy wax Simal wante tey dinañ bëre li nga xam ne moom mooy final raw gàddu dinañ bëre ñaari demi-finale yi nga xam ne moom mooy demi-finale léger yi buñ ci jógee soog a entamé li nga xamante ne bii moom mooy luur yi lépp loo leen di wër ci làmb fii dong ngeen ko mën a amee ci Leewtoo TV wax naa la ko yow mi bëgg làmb bëgg làmb di safoo làmb di topp làmb Leewtoo TV nga war a àndal ndax lépp loo bëgg ci làmb Leewtoo TV dong moo la ko mën a jox ma ànd ak sama caméraman Cheikh Ahmed Tidiane Kébé ndaanaan la ci biir ndaanaan yi ci kanam tuuti ñi nga ñëw jox leen lépp leen bëgg ci làmb bu leen buusee bu leen laal ñoo ngi ñëw léegi sama gaay léegi léegi. attention oh daw na wër ndombo buddi na yëkkati na xale ba bañ na oh Babacar daanu nga Saliou daan na waaw waaw Samba Cissé Mbaye délégué attention Mbaye jëlaat na Mbaye jëlaat na oh Mbaye Mbaye ngay wër ndombo ma ngay wër takk ca xabal na ooy oh oh Mbaye daan ko jël ba na oh la la la la la Mbaye Samba Cissé daan ko jël bu rëy waaw maa la ko wax Mbaye Délégué kenn du moom na woon naa leen daanaan la xale bi waaw waaw loolu cosaanu séeréer la galero kide me wasiru burrefa me bigero gasimya me annu yonti do vip yonti do jobai gawe murai me annu yonti do vip yonti do wagande be sai sai annu yonti do vip yonti do jobai gawe murai yonti do vip yonti do vip yonti do yagadu wenderam daga dewe ndeeram fata ndeeram xale xale ndeeram simalawe ndeeram simalawe ndeeram waga dewe ndeeram xale xale ndeeram diga kerwe ngenoox diga kerwe ndeeram me an nuyontiidu xale xale ndotiidu waga ndefe saay saay ñi ngi fii ci simal ayca demi-finale léger Saliou Thioune ak Khada attention Mbaye délégué oh Mbaye délégué daan na xale ba oh Mbaye daan na xale demi-finale la jee fii ci Simal waaw waaw bandi ngay bëre ca gannaaw waaw waaw bandi 40 attention bandi 40 na sàmm si sa daan wala jeexul. daanagu ko de bande 40 ans Samba Cissé bande 40 Samba Cissé bande 40 Samba Cissé waaw waaw demi-finale baa ngi nii waaw waaw bande 40 ans gannaaw waaw attention Samba Cissé yëkkati na bandi yëkkati na ko ooy bande 40 ans Samba Cissé Bandit 40 ans Samba Cissé ooy Bandit 40 ans attention waaw xale boo war na la ndombo Njool Fadi ay waay Njool daanu waaw waaw man kay jéem tegal 16 oh doole doxul jàmm oh daanu nga attention oh mbalka oh mbalka ngay mbot oh eh ñangar ñangar mbalka ñangar mbalka oh mbalka daan ñangar waaw waaw Pape Maron Babou Soudiane attention eh waaw waaw liwi coor war na ko ndombo liwi war na ko ndombo ma koy dëpp daan na ko ay waay liwi yaa ñuy sotti sa ndox mi oh Pamaron daan na Abou kër mbir daa am. lan moo am. xale yi daanu si quart de finale bi yëpp. dañoo ñëw ci luur. dañoo ñëw ci luur bi yàlla def ñoom ñëpp daanu si nga xam mooy premier tour. tey tey dara doxul kon. tey dara doxul. nee naa la Ndiollo Joola daa daanu si quart de finale si sa daanu quart de finale. maa la wax loolu ñagar daanu quart de Babou Soudiane mii léegi nii daanu quart de finale Babou Soudiane daanu quart de finale si li xam ne mooy tànk ñu ñëw yëg si bi ñoom ñëpp daal di daanu premier tour ndeysaan si poids lourd bu sànn sax daanu quart de finale waaye daa yëg si bi ndeysaan ki nga xam Boy Malika retouram mu daal di koy daan ndeysaan waaye foofu la yaa ndey faatu di yëngalee ndeysaan ah, déggal la muy yëkkati diggante George Poit George Poit ak Boy Maron ndeysaan 40 ans Abdou bu Joal oh oh Guess Ndiaye waaw waaw Guess Ndiaye le grand saltige saltige Guess Ndiaye doomu ndey Fatou Adama Jale noonu ay eh, combat bi metti na jaxabal ba attention oh ay waay moytul ñu war la ndomba waaw oh, oh, oh. Kébé toogal bul dem toogal toogal waaw waaw. lan moo xew dara amagul de Karima nga koy wër ndombo Karima nga koy wër ndombo Karima nga koy wër ndombo Karim wër na ko ndombo mais ak bande 40 ans loolu daanu ko de ma ngi koy kal oh waaw waaw oh bande 40 ans Karim Diouf bande 40 ans Karim Diouf bande 40 eh daanoogul de. ey bande 40 daan na Karim Diouf Karim samp na bopp laa ilaaha illallaah Karim daanaan la nag Karim mii liwu coore ngay takk liwu coore ngay takk kal ko yëkkati na ko yëkkati ko wëlbati ko oh liwu coor daan na Boy Malika waaw waaw attention Pape Maroon Balka Pape Maroon Balka Pape Maroon Balka waaw waaw mbalka jàpp na mbalka ay eh, pamaron tuur na ko pamaron mbalka ay eh, laa ilaaha illallah ña nga jëm ca suuf pamaron pamaron daan na mbalka pamaron daan mbalka cey pap mooy ndaanaan pamaron xale baa ngi koy wër ndombo bañ na meeb jël na ko mboot na ko mboot ma attention moytul mu suru xal la waaw waaw doo ca génn doo ca génn arbitre ba soufflé na xale bi daa raam am nga quatre appui attention mbay daw na jël xale ba rasu mbay daw na jël mbay daw na jël ma ngay war ndombo mbay délégué war na ko ndombo oh Saliou mbaa dinga ci génn Saliou Thioune mbaa dinga ci génn oh mbay délégué war na ko ndombo xale baa ngay bëgg a génn oh doo ci génn mbay délégué da lay daan waaw waaw mbay délégué Saliou Thioune mbay délégué daan na ko Bakel attention o oh, o oh, mbal kaa oh, bët mbal bët na ko caxabal na ko mbal ka daan na Mouhamed Faye waaw waaw yal daan ak ki nga bii mooy Liwi Coor George Boy attention ay waay Pamaron Pamaron daan na ko la ilaha illallah e jam do le jale ro ya bina ke me anu dige e jam do le jale ro ya bina ke me anu dige e jam do le jale ro ya bina ke me anu dige e jomɗole ñaande ɗo ñaaginaki ɓe anonɗige e jomɗole ñaande ɗo ñaaginaki ɓe anonɗige e jomɗole ñaande ɗo ñaaginaki ɓe anonɗige e jomɗole ñaande ɗo ñaa Eh, Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax eh, ci turu président lamb ji moo di Alaaji Ges Coor eh, ak waa dëkk bi yëpp di turu chef de village ak turu imam bi waa vraiment bon seen taxawaay ci lamb ji gis nañ ko rafet nañ ko bu baax a baax a baax et vraiment ay jàngat bu rey la ñuy def daal incha allah incha allah. organisation bi nu ngeen ko waajalee. waaw parce que bon chaque année nii rek lañ koy waajalee. waa commission bi dañuy bugg di def par réunion di waxtaan seeni biir di jokkalante ay xalaat bon ba ñu jàpp benn buum daal après nag bu ñu demee nag ba ñu ne eh, bésu tel la ñuy teg làmba ji waa commission bi commencé ñëw fii di defar mbaal yi defar baas yi incha allah. maa lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm. jàmm rek ay. laa gis. gis na nga yaa ma xam dafa mel ni sa yaram dafa tàng. dafa tàng jër. tey lan nga andi woon. am bëre rek. xam nga ki ngay dajal final. waaw waaw George Poite. waaw mos ngeen a bëre. waaw ñaata yoon. non jaww ma ko nag. ñaata yoon nga ko daan. noo jaww ma nag jaww ma ko nag dañuy bëre nii rek. mais tey loo koy andil. xanaa ñëw rek bu ko jaay doon ci ko jaay doon daan ko rek. loolu ponkal la de gis nga ni mu toll. waaw. gis nga ni mu waaw bu baax. loo koy yóbbante. daan ko rek loo ko amul taxaw da taxaw rek ma daan ko. maa lay fi delloo ziar. mbaa am nga jàmm. waaw maa yi mën na bëre. waaw gis nga tey loo andi woon. waaw gis nga rek ndam rek. mu mel ni doole nga leen di jaay nag. maa ngi ñaan yàlla daal mu motali les quoi. xam nga ki ngay dajal. ah xam nga Pape Morone ki ngay dajal. non maa ngi doog a tase ak moom nag. yéen a ngi soog a tase. waaw non nee na ma ngeen. non non. mosu leen a bëre. non non. loo koy yóbbante. dama koy daan. foo ko teg. si doole rek. George Mboye. la ilaha Pape Maron daan na George Poite Pape Maron daan na George Poite laa ilaaha illallaah da koo mboot waaw Pape Maron daan na George Poite lamb ja jeex na maa la ko wax Pape Maron daan na George Poite waaw waaw ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi jaajëfal na leen bu baax suñu mbokk yi nga xamante ne bii lamb rek ngeen bëgg waxoon naa la ko yow mi bëgg lamb di topp lamb di safoo lamb lépp li nga bëgg ci lamb fii dong nga ko mën a amee fii ci Leewtoo TV tey nag ñi nga woon fii ci Simal dëkk ba nga xamante ne bii macha allah dëkku làmb la démb ak tey ñi ngi fi woon amoon na raw gàddu amoon na poussière amoon na li nga xamante ne bii mooy poids léger ak poids lourd wante lépp jeex na ci jàmm ak salaam jaajëfal na leen bu baax di leen di daje beneen yoon wante maa ngi taxaw ak sama jigéen sama xarit laal yoon nogo maa ngi lay bégee tey ban jàngat nga am ci làmb ji. waaw dama ni la fi ñu taxaw tey fii tey jii dëkk làmb la te fi organiser làmb ji boo xoolee nga xam ne làmb cosaan la te cosaan la woon fii si Simal ndax dëkk góor gi Senghor euh, góor gi Sarr la dëkk Mbalka mag dëkk Pàccaam Mbin mag seen la grand champion ndax këram a ngi nii fa lañ dal ñu jugee ba Mbour ñëw nga jugee ba Dakar daal di ñëw waaye nee naa làmb ji 4 jours ndax lamb buñ ne la ñii dañoo bàyyi xel li nga xam mooy jeunes nga xam ne dañuy euh, bay seen waar ci lamb poussière bi ak raw gàddu poussière bi ak raw gàddu bi ndax buñ defee 2 millions ni la poussière bi am na 200000 ni la raw gàddu bi am na 300000 ni la poids na 500000 ni la poids lourd bi am na 1 million kon loolu ndeysaan tarkala macha allah ñu ngi bàyyi xale yi te nee naa la lutte simple 100 pour cent njom nee naa la benn benn combat téeméeri kele si lutte simple nga ko mën a amee animation bu saf dugg si mbër bu saf tëgg yu neex si lutte simple nga ko mën a amee nee naa la ñu feggoo ko woon ak yaa ndey faatu Adama Jali l'enfant série de Kaolack fils de Adama Jali ak yaay Awa ñu feggoo woon ko duudu doomu Ibu Seen bi. duudu seen duudu seen kenn du moom. ndeysaan waaye mafia baa ngi nii di tàllal loxo yi ndeysaan ñoom laa àndal ñu jugee ba Mbour ndeysaan daal di ñëw fii lourd bi safoon na ndeysaan waaye poids léger bi ñu si daanu si quart de finale dañoo daw yéeg si poids lourd bi yàlla def ñoom ñëpp daanu ñëpp ñu teel a daanu ndeysaan waaye nga gis ki nga xam mooy bandi 40 Karim bu zawal fu ñu daje day saf mu miti lool ñu waat ko jom ak fula bandi amaan ci kawam nga gis Pape Morone mu indi beneen kanam ñëw bëre gaay ndaanaan yi ndax bu ñu nee Louis Thior numéro 2 nga xam ne ndaanaan la arbitre dañu pib rek mu capati yel ba saan ni ko jël tànk ba daw moom ni ko ñibbil mbaaw ndeysaan mm. waaye nga gis ki nga xam ne ndeysaan tarkala masala kooku Yacine Sarr la mbokkum nday yaa ndey faata adama jali caatoo caat ku yónni yool baa nga boog yaayam ndeysaan <laughs> waaw waaw nee na damay jox ndox sama simo moo adoré waaye Leewtoo TV nee naa leen fi ngeen ko téye foofu la nday Mbacke naa ko Assane Waalo ziar ko waaye seen directeur du ma ko fàtte muy Pape Thialis Faye sa caméraman yi du leen fàtte waaye nee naa la ku bëgg lu baax nga bëgg vie yu bari bëgg gars yi abonné ñëwal si lutte simple bi ku ko bàyyi bàyyi nga sa loxo 100 pour cent njom lutte simple ak Leewtoo TV day neex njom affaire la ndeysaan njom fa pelelum su ma mënoon a juddu war séeréer laay doon barke Serigne Touba barke Rasulullah ak ay maga noonu àllay waxe buy wax ci làmb yéen a ngi ko gis noonu àllay waxe dig daje sama gars yi beneen yoon ci beneen làmb fii ci Leewtoo TV sama gars yi ñu dox ma beneen yoon